a ngeen jëf mbokki wasaare làmb wasaare TV ñoo ngi leen di nuyu di leen siyaar di leen bëgg di leen jox seen wàccuwaay bu baax a baax euh, ñoo ngi fii ci wasaare ci émission bi nga xamante ni mooy jàmmaarloo waaye jàmmaarloo bi nag tey dama indi ñaar ñoo xamante ay ndaanaan lañ andi ki nga xamante ni mooy xale Grand Yoff bi ah ñu koy wax mobile ma dugg ba biir Bawol génne ki nga xamante ni mooy buur Sine ku ne Bour Sine nag ah ne Bawol Bawol. tey nag ñu andi leen fii ñi nga xamante ni ñooy seen i fans seen i seeni xarit seen i am di jàmm ñoo xamante ni mën naa ne jege nañ mbër mi comme ni ma koy waxee chaque jour rek làmb du bëre làmb du abiti làmb amateur yi ci lañ bokk làmb supporters ci lañ bokk moo tax wasaare ñëw dafa leen li nga xamante ni mooy jàmmaarloo andi leen ñaari mbër yi waaye balaa loolu nag dañuy jib li nga xamante ni mooy màggal Touba su mu nee màggal Touba nag xel yi dina dem ci lu bari ndax fi mu toll ñëpp a wàccaa jëm Touba waaye man comme ni ma koy waxee rek man damay dem Touba ak ñi nga xamante ni nii dañuy waaj dem Touba di nuyu ñi nga xamante ñooy téléspectateur Wassare TV maa ngi lay nuyu. waaw Ouzin maa lay fay bu baax du la nuyu di nuyu waa Bawol gépp di nuyu mm-hmm. Buru di nuyu waa Réfane yëpp. Mm-hmm, waaw di nuyu waa équipe Bawol. Mm-hmm. waaw ñu ngi waaj daal bu baax a baax suñu combat. waaw. Damba maa ngi lay siyaar. bëggee naa la maa ngi lay yëpp. di bëggee ñëpp di bëggee Grand Yoff gi jóge di ziar ñëpp euh, di nga xam ne ñuy waajal combat boo xam ne combat korona lañ ko tuddee. combat corona. waaw. corona bi ñu ñaan mu dem yow nga bëgg andiwaat. waaw yëkkil mi ko. maanaam boo déggee ñu ne combat corona mhm. mooy am na ñoo xam ne nanguwuñ jël waa ji. nanguwuñ jël mobile waaw moo tax ñu tuddee ko combat corona. mais mobile mobile mobile dafa teg la ay défaite teg la deux défaite amoon benn combat combat bi yàqu nga ne gars yi dañ ko ragal a jël. waaw boo déggee gars yi dañ ko réglé jël mooy bi mu nekkee États-Unis ba léegi dañ ko doon contacter ay combat am na ñoo xam ne dañuy dem ba ci biir mu yàqu mais duñ fi nekk nag naa diw joxul nañ ko diw jël nañ ko diw jël nañ ko moo tax man la combat bi combat corona la. kon xam nga ne combat bu du yomb ndax bu fekkee ñëpp dañ leen di daw buusin fekk leen ne leen ñëw la ñu bëre xam nga ne combat bu du xam nga ku nekk ci kàmb day bëgg ku ko may loxo. walla ñoom ñoo nekk ci kàmb. ñoo ñoo ne ci kàmm ñoom ñoom ñi nga xam ne kalaaf bi dañ cee dugg daanuñ ci kenn. am ci deux défaites am ci doo défaites ñun ñi buur seen bopp bëreel. Hmm. mobile bëreewut ak ñoom. mais moom dafa ne gars yi dañ. à part Mama Lamine kan la bëreel xam. à part Mama Lamine. mais eh, ñoom bokk nañu adversaire waxuma loolu dama ni Bour Sine à part Mama Lamine ne moom mbër bii la bëreel bu ñu xam ban adversaire ngeen bokk bokk nañu sox sox dañoo daan mu daan ñu ah bëri ngeen ak sox bëri nañu sox ci ah, combat Balla Gaye loolu ba loolu loolu. ban 1900 la. loolu ban 1900 la. mais soxu mbër la soxu ndaanaan la. loolu ko. doomu la. deuxième troisième combat am top mais est ce da leen ëppoon doole rek. ëpp doole. Rouge ko ah, ndaanaan la. <laughs> ñun bi ñuy jël maama Lamine. Uh-huh. moom boo ko fi yoon àdduna ak li ci biir du jël maama Lamine. ñemewul jël maama Lamine. fii mu toll ni mu ñaari defet yi mu tegle boo ko fi yoon du jël. Eumeu Sène senior ah, soo bëggee dégg ñu yor nii. waaw waaw soo dégg dëgg avance bi ñu yor nii maama Lamine moo ko jëloon ba mu neex mu delloo ko soo bëggee dégg dëgg. Uh-huh. waaw. mais est nekkul dafa dafa gis lu gën loolu wala gis gis parce que Garga 2 moo moo combat boobu moo dàq Boussine moo dàq. maama Lamine xam nga lu tax xam nga lu tax mbëri du jël mbër mu daanu Mhm. mbër mu daanu buy ñëw day ñëw ak beneen fetal Bou Sine daa daanu mobile daa daanu kon combat wu neex lay nekk waaw moo tax man la komba korona la maanaam du caagi ni feebar bi maa ngi doog dégg lool <laughs> ku ci daanu daal moom sayee jeex na dangay ñibbi kon combat bi dina metti de déggoo li ma la wax metti xam nga combat bi waa sax ñoo gën a xam mais kii sànq dafa am lu ma dégg mu wax ko parce que maa ngi ko dégg sànq ci biir wax mu ne bawol bawol yi mu ne waxul sax làmb dafa ne bawol ñemewuñ ñu dafa ne bawol ñemewuñ ba xaw na fee andi sax ay coow sànq ñemewuñ ñu déggoo <laughs> waxuma waxu combat mbër ak mbër waaw mais ñun ak ñoom nii rek ñemewuñ ñu mobile bawol kenn la fa daan te bi mu koy daan sax ni mu demee la rek ah, am na ku fa daan moo tax mu ne ñemewuñ donc la fa daan te billaay wallaay tafaa leer ko moom ni mu demee la rek fukk ci moom tafaalee ko moom kenn rek la fa daan mais Ndandi Fall Ndandi Fall ak mobile bi muy daan bi muy daan kéwél loolu xale la loolu moom jamono xale la rek mais barki Serigne Touba kéwél la moom la fii moom fi daan xale la <laughs> sax bu gars yi bëgg loolu kuñ daan rek ñu ne xale la xale waaw xale du bëre xale dañ koy boot yaayam da koy boot rogganti ko dafa ko bëgg wax dafa bëgg wax dafa bëgg wax bi. daan di faal di daan euh, kéwél day doog a yegg si ci làmb quoi. foofu lay waxee ay deuxième la. bu ñu nax kéwél dañ ko fay xaalis fay naa ngi xaalis mu dem préparer dem bawal dem ñëw toog bëre ñi daan ko gis nga bu ñu la da ngay gëm yàlla xam dañ la daan bàyyi leen kii xale la kii mag la amul loolu làmb ji amul loolu. mais est que est-ce que Serigne Touba hmm. moo jëkk kéwél ci làmb foofu man naan naan gis nga naan bi muy daan kéwél naan moo mun kéwél moo njëkk kéwél ci lamb mais est-ce que est-ce que est-ce que est-ce que loolu amoon ci diggante Ndandi Fall ak kéwél est-ce dina am ci diggante Bour Sine ak mobile moom bu mobile bu def defloo Bour Sine da koy doon déglu ma wax la fii bu koy daan duñu not géwél duñu duñu not géwél duñu not géwél waaw déggoo li ma la wax daanu xalaat ngeen yéen yéen Bour Sine xeex ak yéen. barki sëriñ Tuubaa ngeen daanu Bour Sine bu ñu bëree moom laa wax nekk di kërti këri làmb ji di jeex. benn baaraamu mobile bu koy bu jàppee si ngemb ji làmb ji jeex. déet nee na Bour Sine taxaw Bour Sine la wax. kii bu mobile jàppee ci ngembam làmb ji jeex nit ñi ñibbi. mobile wax rek la moom. ah mën na wax. mën na fecc. fecc moment cay jeex bu fecc ma jeexee jeex na loolu rek la ci am. bu ñëwee tuus ba stade bi yëngu. pare na ci bi fecc pare na ci te bu ñu tëjee barrière yi barke li muy bëree laa la wax de. waaw bëree li muy bëree dëgg dëgg bëree gu ko ba gars yi xam. Ah, mais est xam nga ne est ce que xam nga ne Boussine dafa oos. waaw dafa oos loolu lañ bëgg nag. Boussine bi dinaa la wax ñaari mbir. Mhm. bi mobile jëlee booy melax xam nga lu ñu wax. déedéet booy melax tapet mobile tapet la. mobile mhm. yanu ko ba si kaw dóor ko ci suuf mu jël Kara Dollé mu ne voilà ñëpp ni tapet la. combat bu metti mu bëreeg moom douze minutes. waaw treizième minute mu cabaxal ko daan ko. ñu ne Tapha moo dàq a bëre Bawol moo ëpp fit Bawol te hmm. loolu moo am moo dàq a bëre Bawol moo ëpp fit. Tapha Leer Tapha moo dàq a bëre moo dàq a bëre Bawol moo fa ëpp fit. bàyyi ay njaaytin a ngi fa. moo ah ay kéwél a ngi fa. kii ma Tapha Tine moo leen dàq a bëre. kan moo leen a bëre. bon déggoo la Tapha Leer moo dàq a bëre ba mu daj ron. te mobile da koo defaral. bon ñu ne demoon na esat ni mu demee la rek. kii demoon na stade mi ngi fa. ci sama kanam la mais ni mu demee la rek mais billaay ay bu doon ci jëm jamono ji la barki alxuraan mënu koo daan. barki Serigne Touba ñii du ñu daan. <laughs> mbiram Grand Yoff am mukk. amul amul. xanaa kon dañuy dañuy demaat beneen beneen dañoo nekk beneen Sénégal bu bokku Sénégal bi ñu nekk waaw waaw mbiram Grand Yoff. waaw daan mbiram Medina. xanaa nekkuñu Sénégal fii nii. ci seen kaw ñoom ñoom ci seen kaw nag nañu xam loolu. kenn ngeen fi mujjee daan. waaye Bébé jàpp fourrière du ma ko daan. Bébé Diène fan la dëkk Bébé Diène fan la dëkk. Bébé la dëkk ak Medina la dëkk. waaw man ay moo fi xam kan moo fi andi. mobile mobile 2. <laughs> xam jeexee ak jàmm bañ jàpp dat. eh làmb ji mu tijji de loolu dinaa ko xam naa ne moom mbër mu ci parewul bu nekk bu yoboo nga. waaj ak Seydina Mohamed. kii yorul wérul kii ñemewul. dañoo yàgg a pare barke alxuraan kii déggoo lu ma la kii 3 minutes la bëre bàyyi combat bu mujj bii ñu ngi estat. déet déet mais làmb jooju daa metti moo ko mënee suñu waaye kii moo daane boppam moom ak eh, bu mag. Eh, waaw moom moog sox lu mu man bi may dem estat damaa jàppoon ne sax moom day rey sox. waaw déggoo lu ma la wax ndax biñ tirage ba mobile génn ak sox. waaye man damaa jàppoon ne sax moom day rey sox. mu ñëw combat bi xaw a yomb man ca laa ko jëppee ba léegi ko waaye mobile day mbër wax la moon wax. <laughs> ak fecc waaw Serigne Touba ko dof dof mais ñii bu ñuy ñibbisi door mu daanu billaay ñii dañ leen di dóor ñaari yoon xam nga fi ñuy jógee day sori. Uh-huh. fi ñuy jógee pour ñëw fii day sori. wala yéen ñuy jógee ñii waaw. Medina la ñuy jógee balaa ñoo yegg si dañuy so dañuy dañuy day métti si ñoom. wala ñoom ñooy métti si ñoom te ñun soriwul dañuy dox. dem dem dem arène nationale. dem arène nationale aller ak retour. fii ku eh, fi jàpp di nga dina la métti de. loolu sori na de fii lañ dëkk tout près ma damaa dox ñëw de daw ma dellu ma oto defuma dara damaa dox ndànk ñëw autoroute bi laa jéggi. dox biir naa ci yàlla bu bees baa ñun sax ñoo leen di jekk stade. ba li nga wax billaay. ah Bawol Bawol Bawol nag dañoo mën bés de. Eh, ñun dañoo dañoo war a xam ne ñun mais ñii mhm. buñ ñu napp ñun xamante nañ bu baax gis nga buñ demee fee. ci la xam ku mën ak ku mënul gis nga fii dafa yomb da ngay gis waa joo xam day dem yenu ba ba mu tàng mu ñibbisi ba ñu maye porte mu daw dugg. daw dugg ñu waa ji andi na supporter andiwul dara fekk gars yi. ñoo toog ñoo ñëw dugg. ñu ni bool bool yi dañuy andi mbooloo duñu dañuy nax rek. <laughs> barke Nabil Moustapha Mbacké li ñuy indi ci mbooloo mobile du ko indi. billahi yow eh, mais mobile nag eh, a xam ne ñun Bawol Refane ak Medina. mobile paasul ak ginaar bu xonk. Ah. taxul téere loxo di dox ci mbedd yi. <laughs> liggéey ba sonn ñëw naa mbër laa déedéet mobile grand yof la juddoo. ak jàppam la yor nii rek ab jàppam la yàgg yor nii rek. Euh. mais barki sëñ Touba suñu école suñu école. waaw xale ba ca gën a tuuti moo mën mobile bu ñu bëree mu daan ko. waaye da ngaa neex xam-xam la da ngaa xam naa ni mburoog may nees nga ndékkee ñëw. waaw loolu lépp garaaw la pizza nga laal wala sa ma ñëw toog. <laughs> kii man damaa ñàkk sax bay wax ak benn célibataire nii buy wax nii. di non mais mais déggoo li ma yéen dina leen duma ba dàq ji leen. billaahi barki Serigne Touba mënu ngeen ñoo dàqe ji. mais kii fan na teg fan la teg fan la teg ne Bou Sine dafay dóor mobile mu daanu. dina ko door mu daanu sax. Ah? parce que li ñuy wax naan mobile ñemewul affaire yeme ah, noonu. loolu wax jaafare barke maam Seydou. loolu noonu mooy rey mbëri bëri baar bi di seen diggante day roo. Bou Sine mu ñemee taxaw ak moom naan da ngay fayit ak moom yombul de ah xam naa ci waaw léegi moom ak Kara Dollé ñaata minute la ñu bëre. Bou Sine ak Kara Dollé. waxuma Bou Sine Kara Dollé mobile Kara Dollé waaw xam nga yow sa nga ñëw làmb for ay téere takk ni mbër nga man ba léegi mosuma laa gis nga bëre man loolu jaaxal na ma tamit de amagul licence ak sam dama ñëw bàyyi xoolal gis nga làmb yi dafa métti <laughs> barke Serigne làmb yi man man man laa wax man ndaanaan la man kii ndaanaan ci man barke alxuraan nekkul ci mobile kii nii yandaa sama gëm-gëm yandaa champion la barke alxuraan barke kii bu ñu ma daan ko fukki jël yu bokkul ak benn barke man kale yi nekk ci man dong nekkul ci mobile nga mën a lekk mburu fukki dërëm mu ni mbër la sa waaye eh, yow toloo ni ñi de dama nga liggéey <laughs> wut xaalis nga ni da ngay bëri mu bàyyi làmb ji loolu nga bëgg ay kii gisoo ni mu toll kii mu dul amee cinquante xool kii maa moom maa ñaataat la am ci la am ci ren seize ans eh, mi ngi ñëw ci làmb ji mu ni kon yow da nga koy gis ci làmb ji bu baax ki forteere rek mooy métier barke rek eh. mais kii nag daa yàgg ànd ak waa Bawol yi de man Paul Maurice laa toogal cumikaay bi muy jël terrain gaal gi bi may toog booy ba léegi man lu ma taree ci làmb moo ma ko tarreel may comprendre mhm. de bi may toogal Paul Maurice cumikaay kii xalaatul sax dugg làmb waaye boobu man damaa judd man damay xale bu ndaw barki alxuraan Sénégal dafa neex boo jógee damaa judd fekk yaa mag cere maaseeg laalo mais nee na 16 ans kii fan la amee 16 ans. su fekkee ne aw ma 16 ans fi ma jëm yàlla bu ma fa egg barki alxuraan. xale waa Bawol dañoo yàgg bëgg làmb waaye déggoo li ma la mbalit la ñuy dugg mbalit boo duggee mbalit loolu sa waay ñëpp gaañee la bu télé yëpp demee ñibbi nga nekk ci télé yi di for ay déluma a mhm. Assane Ndiaye mi tegoon buri si nag maama du ko wax Xaadim Sam du ko wax ah mhm. eh, kii li ma ñoo xam ay eh, xam nga ñi lan lay lim du ko wax mhm. xam nga ñan la lay limal Assane Ndiaye moo tegaatoon Boursin Mamaya du ko wax barke alxuraanu karim li Boursin di indi mobile du ko indi eh, te ba man du ma nekkuma koo xam ne damay toog sama gàlle di nelaw di yeew naa ay mbër laa damay ànd ak mbër non non man damay def stade chaque jour sans mobile bëre sans mu bëreel damay dem làmb Bour Sine du mobiliser sa ay bu ñu nax. mbalit ngeen di dugg mais mais mais waa Bawol xam naa ci ñoom leen ku ci am combat ñëpp ay tëj seen place daw ñëw ci stade def ko xam waaye déggoo ma la wax. waaye waxuma loolu mais. sànni la place dafa yomb fii dafa yomb de. baa dañuy tëj place doo rek ñëw ci stade bi. waaye déggoo li ma la da ngay toog ba dernier moment bañ ni spécial bay des nga ñëw dugg. kii nga ni yow nga ni waa ji andi na mobilisé na. wax sax xamu ko Nabil Moustapha moom li muy wax sax xamu ko. Eh, ñun dañuy sëñ caméra yi tiim la nii yor suñu moto dawal ba stade dagg bi dugg ci biir toog. ñun ni ñuy jën ci bolok mobile sax du ko jën barki alxuraan li ñuy jën ci bolok mobile sax du ko jën. xoolal kii laajte ko mobile de dafa leer. Mhm. bu waxalee dëgg te yàlla tax kañ moo tëgg combat bi kañ. kañ production production moo tëgg combat bi est-ce que yaa may comprendre kañ moo tëgg combat bi. Mm-hmm. si jour avant làmb ji. Mm-hmm. trois blocs la ñu jox làmb ji bi ñu demee ba jouru làmb ji ñu demaat jëlaat quatre blocs. Mm-hmm. kii ñun li ñuy mobiliser du ko mobiliser. Layel Fallou Ndiaye moom mi ñu tëgg si kalaaf bi mu xam ne ñun. kalaaf ba kalaaf ba laajte tirage baak lépp ci sama kanam la indiwu ngeen fa dara. tegoo ma ay defet ngeen fa jëlee rek. waaw defet lañ fa jëlee ñu sante ko yàlla suñu borom. yéen ramadan bi dafa ñoo ubbil ay buntu wërsëg yu bari. yóbbuñu ñu ñu dem amaat beneen esprit bu bokkuloon ak bu ñu yor billaay walaay taala yow mooy bu jàppee sa ngëm nii rek jàpp man ma ranger bagage yi nii kaa la ñibbi parce maam Thierno Ibrahima. ñu def grand wax ñu laaj ko ko. Mm. nit ak grand <laughs> bu <laughs> maanaam su ma déggee su ma déggee wax ji mooy waa grand yof dañoo bëri wax. wax rek. du ñooy kamantaan de du ñooy kamantaan du ñu ngaaxa ñun ay bawol bawol lañu piir ñun ree fan lañu ñu nga dégg diggante xombal ak Touba. <laughs> nga naa eh, ma xaw fa laa dëkk kajoor laa dëkk. waaye kajoor ni tey voilà. moom kajoor laa dëkk nañu dem nañu dem seetaan ne ki nga xamante ni nii mooy mobile. ñu xool entraînement yi xool état de physique bi buusin bëggoon nañ koo jël waaye réseau bi moo xaw a kii quoi nañ dem xooli ko après bu ñu paree ñu def jàng ci entraînement mobile te dellusiwaat kàggu ñu dem xooli loolu te ñëw. gis ngeen noonu lañ koy defee gis ngeen entraînement ki nga xamante ni mooy mobile naka mu gisee entraînement mobile yi. waaw ko seetaan naa entraînement seetaan naa ko même seetaan naa ko ci yeneen si bi sax. Mhm. mais lu mu liggéey na xam ne doy rek. mais noo gisee état de forme bi. ah lii lii graisse la rek ak ndox. ak ndox mobile toll nii. waaye mobile waaye ñun de mobile man mobile man. waaw mënumaa jaaxal man. yow mi sa wàll boobu. man mënumaa jaaxal. muy baax du la jàpp. tocc bi ko dem xool leneen. waaye bu ñu neexoon sax man suuru comme bu ñu nee suba la combat ma ñu ngi naa fanaan buntu kër mobile man kese man. fan nga teg loolu. non damaa xam man ki ma nekkat. Mhm. ki ma nekkat damaa xam xam fitam ak li mu sañ. barki Serigne Touba soo demee CNG mbir yi dàq xeex moom lañu jëkk def turam waaw. ah CNG dañuy bind mbir yi dàq xeex. waaw mu ngi ca liste ba. du ragal le barke alxuraanu karim du ragal dañu ko yàgg dañu koy soraale amul mbir mu ko ci dut sooraale ku ko jël xam nga ne combat nga am billaahi wallaahi te bëgg bëgg Fallou mi doon seen entraîneur sax xam nañ ne ñoom combat dëgg la ñu am billaahi wallaahi man waa Grand Yoff dama leen a xam bu baax ay taqat dong ñoo fa nekk du dara du ñu tuus dama leen a xam bu baax a baax a baax. noo gisee état de forme nga xamante ni moom mooy avant ñoo ñëw ci loolu. état de forme mobile boo xoolee état de forme entraînement yi xam nga. loolu jaaxaluñu ci moom koo xam ne amul dara événement bu am entraînement lay def matin midi soir lekk tëdd nelaw. Mhm. mobile làmb moo tax mu bàyyi mécanicien bi mu doon def. dafa bëgg tëral papaam ak yaayam. Mhm. mobile judduwul ci état ci baraag la juddu ci kër guy inondé la juddu. Mhm. Euh, dañ ko invité FM Sénégal. Mhm. mu ni ba ma bëgg balaa déwén sama yaay dëkk ci étage. Mhm. yàlla dimbali ko ñuy xeex ci loolu ba mu am. Mhm. mu bi li mel nii jaaxaluñu état de forme bii nii lii mooy bii nii sax bi mu yor nii baaxul. ba li yor état bi mu yor nii baaxul. bu yóbboo mu ah, génn kon kon baadu baadu da ngay dëgg li sa waay xam nga lu tax ma ni la baaxul. Uh-huh. parce que boobu fi mu nekk dafa sedd. ok yaa ngi comprendre. Uh-huh. maanaam du cadre entraînement bi baaxul wala loolu non fi mu nekk moo sedd maanaam day entrement lu muy entraînement pois bi day gën a te entrement kese kese kese. Mm-hmm. Sénégal la gën a neexee maanaam bay dafa dem yokk xam-xam ak yeneen moo tax muy entraînement di yor pois mm-hmm. mais bi mu ñëwee fii nii ñu am yeneen professeur yu ñu ko jox mu koy teg teg ko ci yoon kii am na problème de. déggoo nee amul benn problème. Boury dafa neex nii dafa def xam nga lan dafa ma la wax. waaw oh, ko te da koy yëngal waaw te da koy yëngal <laughs> waaw yaa ma gën a xam. Fatim benn kele la am de la plaqué wul du la daan. benn kele ku mu plaqué daan. Fatim bëri Bombardier dafa daan mu jaaxaan. ah en tout cas Tafatina daan daan mu jaaxaan. non daan na ko moom la jël victoire bi daan na ko de. waa Grand Yoff bu ñu sañoon am ku mel ni Tapha Tine. ah Tapha Tine bu sañoon am ku mel ma la wax de. Uh-huh. ñun soxlawuñu Tapha Tine. mobile ngeen gis. ñun gisuñu Balla Gaye gisuñu Yékini xam nga ko ñu gis mobile de Nandi Fall. ñun suñu yoon nekkul ci ñeneen ñun suñu bët feesul ci kenn ci ñaar ñooñu la fees ku yor sa produit yóbbul foo ko jaayee ñun jënduñu lebuñu jënduñu. finalement am nañ ci nga xamante ne ni mooy entraînement kii di Bour Sine gis nga réseau bay xawoon kii waaye mujj naa jag kàgg ñu dem xooli entraînement Bour Sine te dellusiwaat Gueye dem nañ ba ñëw xool nañ entraînement ki nga xamante ni mooy Bour Sine noo gisee état de forme Bour Sine ak entraînement bi. waaw entraînement mhm. bu baax lu mu gën a yokk mooy gën ci moom parce que dinañ ko teg lu ko góor musul teg. da ngeen bëgg mu ñëw en état de forme bu boo xamante ni lu ñu bëgg. ok ñun ñëw état summeeku ko ñu ni waa ji entraînement dañoo bëgg bu sumee ñu ni waaw gongo. ah jàpp boo xam ne boo borewul sax ci yow lay nekk. est-ce que yaa ngi may dégg. naka mobile moom mobile ci boppam moo yor jàpp boo xam ne bu bëriwul sax ci moom lay nekk. ba état koo eh, judduwaale da koo judduwaale voilà yow a ñëw. xam nga lu tax <laughs> xam nga mu ngi ñëw daan mobile. <laughs> Euh. bawol bawol yi dañoo fan mobile. ni ñu fanee mobile mobile ci boppam. ñii déggoo li ma dañoo fan mobile. Medina ku fa dëkk da ngaa muy nga jógee bawol ci àdduna mënta am mu déggoo li ma ñii dañoo fan mobile xam nga lu tax ay ngaaxal lañ dañoo paas ñëw. waaw yéen yéen gàddu lan lan lañ gàddu nga leen. ñun mbuus bu bële lañ andi. <laughs> ak ginaar bu weex takk téere loxo. <laughs> yanu ci marché yi ba sonn. est ce que yaa ngi comprendre. sama cameraman dina la mexe. booy taw ni ñëw nandal leen tuuti ñu ne ay nga ay nante lañ du ñu ay nante. waaw ñun ñun yàlla daa dogal ñun ñu nga jóge ci àll ba. Ah. ñu nga jóge ci àll ba dañoo paas ñëw. te ñun bëre fan la ñu ko jàngee ca àll ba. ca àll ba ca àll ba la ñu ko jàngee. mais xam ne parmarès sax barki alxuraan buur si na ko gën mobile. foofu ñaata combat ngeen def. waaw Doudou Sine est-ce que dafa ay 14 combat ko ci daan soxa ko ci daan ah Homme Sène Junior. Mama Lamine Mama Lamine trois défaites waaw. ñoo ko ci daan. noo gisee entraînement Bour Sine. waaw ñun moom entraînement Bour Sine moom gis nga barki alxuraan combat bi ñu mujj a bëri sax. Hmm. ay 4 heures du matin la ñu yeewu di dem din yaag géeju fajar. barki alxuraan école bi ñu entraînement donc 4 heures pile lañ cay dem ci ngoon gars yi fa lañ ñuy fekk. maanaam da ngeen respecté entraînement quoi. waaw respecté entraînement moom ci moom barki alxuraan Serigne Touba te billaay wallaay bu dof dof li ma la wax léegi rek bu dof dof. ngeen koy daan du ñu not géwél. maanaam yéen daal da ngeen teel a libéré supporter dañ koy a libéré. yaa ngi nii toog maa ngi nii toog. yaa ngi nii toog waaw yàlla nañ ca yàlla yóbbu bu baax li may wax. yaa ngi nii toog maa ngi nii toog yaa ànd ak moom teg ci ginnaaw mu maa koy sotti gàllaaj su la neexee nga ñëw ñu parier un million un million. su combat bi defee trois minutes nga jël làmb ji trois minutes. waaw mais ay dóor mu daanu ngay nekk nii di wax trois minutes bu ko làmb ji diiree nga jël xaalis. fekkee ne billaay walaay bu ñu def loolu sax du mat moom day mat trois minutes moom ndax combat bu ñu yóbbee noonu ñaari li ma gis li li ma li ma gis ak li ma woon uh-huh. du ko daane lu dul dóor mu daane waaw xam nga laa bëgg a laajte fi mu toll nii combat bi ñëwagul saison tijjeegul mais li ngeen di waxee dafa mel ni ku ci nekk dafa am luñ ko déey ñoom ñooy wax rek. non lan lañ leen dee dafa am lu leen dee te combat bi ñëwagul jàppaguñu dat daa xewagul. mais dafa mel ni li ma dégg kii di suñu adversaire kii xaalis moo ñu boole. ñoom ñoo ñu kii corona moo ñu boole. ñoom ñoo ñu ëpp défaite fuuf. mo mobile mobile ñaar defet la am. mobile li mu yor ci defet. man mobile ba ma ko xamee ba léegi. <laughs> ba ma ko xamee ba léegi. <laughs> ku ko daan waxal ki daan. kii war na bëre doomu danguroo ragal la tapet bu mag la. non wóorul làmb ji moo amul. bu bu doon bursin nag day bu doon bursin ak ni mu tegle ñaar defet ci kalaas bi day dem bëre moom te ma gëm ne da koy ah, dafa tegle ñaari defet dem daan ne bu demee doomu dangu laal ko bi mu depp mu tapet naan ay dama am feebar ak <laughs> moom Fallou Ndiaye bi ko teg sax xam na ne kooku du mbër. barke sëñ Touba xam nga lu leen métti. Ah. mooy dañuy bëgg a nekk ci niveau bi nekkuñu ci niveau bi. yow nit ku jël xaalisu jàmbur lekk ko nga ni dafa bañ a bëre. billaay dafa bañ a bëre. nit ku jël xaalisu jàmbur lekk ko tëdd di nelaw nga ni kooku dafa bañu a bëre. combat bi la moo tax amul. Euh, combat bi li tax amul. Mhm. benn jarbaatam moo doon xeex. Mhm. ci sense bi ñun sense laa la ñu dëkk. Mhm. benn booy la doon xeexal amag moom problème jarbaatam moo bi. moo doon xeex ak benn booy. ci problème mu engin affaire yooyu jàppal bàyyi mu koy àtte booy bi yor mbaari mbaari yi dagg loxoom. ok. tout cadre ay nit ñi ñëpp dañ doon wax na bëree na bëree na bëree mais nit ki gis nga buñ la daanee yow lay nekk. Mhm. ak say mbokk ak ñi lay jigéen mais mhm. boo daanee Sénégal yëpp lay nekk. mais mënoo bañ a wéroo ba pare nga ni da ngay bëri. loolu du dara du ay jàmbaar du dara xam nga lan la dof. gis nga jamono jooju gars yi dépassé nañ ko ci làmb instant bi gars yi ay professionnel lañ dañuy dagg seen xaalis fay fii dem Europe pour am yoo ko xam-xam xam nga làmb ji bu njëkk lan la gars yi doon def mhm. dañuy dem fii bar fixe lekk cere tëdd nelaw boobu dépassé nañ niveau boobu gars yi boobu lan moo tax gars yi dem Europe dañoo dem pour liggéey yoo ko xam-xam waaw da ngay nit ki booy def CI ba mu yàgg nga nekk cinq ans CI waaye saa waay mën ngaa bàyyi dem dem dem bàyyi li sa bàyyi ñebe ak ak mburu xool noo def wuti liggéey maam nit ki li ngay liggéey dañ ciy ñaan tedd di la ñaan ci expérience neen bu bokkul ñun gis nga gaa yi ngay gis ni feebar yi feebar yéen mbëri xam nga lan moo ko waral ñàkk xam entraînement bu baax yow ay quatre heures du matin jàpp ne yaa ngi entraînement fekk sa bopp yëfu dof la entraînement da ngay entraînement dafa am niveau par loolu boo koy def mën ngay def benn science boo xam science yow ngay def benn science benn bu baax boobu moo ëpp solo quatre science mais da nga bëgg wax daal waa waa waa Bawol ay ngaaka lañ dañuy ñëw yéen seen bopp loo xamante ni attanuñ ko duñu récupérer gis ay fulaar ay till loolu ay jamonoy sedd gars yi xoolal xoolal lim déglu xoolal li ma lay wax rek ay fulaar la ñuy takk ay mais ku nekk loolu jamonoy tubaab la tubaab ama tubaab ñun toog nañu Medina nii toog nañu Medina déglu ma su nii toog fii di wax comme ay film ci man nii ba li wax. maam Thierno Ibrahima Fati ak sonné rek di am na ñun toog nañu Medina nii nii. Uh-huh. papa nii toog ni ñu toog nii di ataaya. Mm-hmm. yàlla dogal sus mobile romb. paa bi ne kii kan la ñu ne ko mobile ku tudd Baye Diaw mu ne kii góor waru ko man ma ne ko kii du dara yaram wee fi nekk nii rek du dara. li ma leen doon wax léegi bi ñu nee naa la kii déggoo li ma leen doon wax léegi léegi laa la ko wax nee naa la <laughs> déggoo ma de ah loolu tamit mën naa nekk. ñii suñuy fansal lañu mën nañu ñu. amaa fecc yi ngeen di fecc moo leen bëggee barke maam Thierno Ibra Faat ñii dañuy bëggee. ca alub kaañ ba lañu jóge ñëw fii. ñii dañuy bëggee <laughs> dama lay wax leen bu ko Bour Sine jàppee barke alxuraan di ngeen xam na yenn yéen a gën a xam ne sa am gen combat. lii du déggoo li ma la xanaa lii dajul liir la. jërul ah, muy metti nit ñi di ñëw baaru ñaari ñaari ñaari paquet ñuy jënd ñaari tàngal libaru ceeb mu jeex ku ne dem bayali sa bàyyi ngoon. waaw baax na ba suur ba. yéen boo leen ñàkkee dëgg dëgg dëgg dëgg mooy lu la dóoree lay mbéj nga dee. waaw yow da ngaa xam mobile moom mobile moom. mobile moom mënul mënul mënul mënul mbéj ba aussi mu dee. da koo mënta làmb la de damaa xam ne bu ngeen ko am bourse koy duma. ah damaa xam ne combat Bour Sine yëpp day xeex xeex bu métti xam nga day xeex. waaw xam nga Bour Sine day xeex la ñu wax. Mhm. day xeex day xaañi di xeex ñi ni day xeex. combat bi boobu xeex ak moom force su doole mbaa. boobu boobu force su doole mbaa. Serigne Touba mu ngeen xeex ak ñun fan ngeen di yeewoo. dafa ñeme ngeen xeex ak Boussine. Boussine jotul yow ko defee fan la ñuy yeewoo. Boussine jotul de. jotul mais dama ne est-ce que ñemeen ngeen xeex ak. Boussine la waaw dëgg bu bu ndaama. mais Boussine du ndaama noonu de. Boussine ndaama. Boussine mën ngeen koo sut tuuti rek mais Boussine du ndaama de. mobile day teg boolu ceeb ci kawam lekk ci ba suur ni ko allez dégg kii déglu ma dañ koy duma daan ko kii ba ñu xanaa xamoo dégg nga léegi li ma bëgg xam mooy la ma li ma bëgg moom ni ñu demee nii gis nga yaa ngi gis waaw nga ko ni mu toog yaa ko sut de yaa maa ko ëpp barke maa la ëpp doole maa la daxa maa ko sut maa ko su la neexee laa la wax de mm-hmm. ma bu affaire bi jeexee bi jeexee tey ngeen ko ñu maye léegi ñu maye maa la maa la ëpp maa la daxa bëri maa ko moon kii waaye kii ki man li may bëre sax xejut ci moom. man kay boobu léegi musuma xool barke yàlla billaay walaay ko gis sax. barke àll musuma ko gis laa la wax nii de mu bëree mbapat wala dara. waaw mais man kii musuma ko gis mu bëree. nekku ci àll ba lay dem def ay mbapat. kii mu war na xool ci YouTube bi léegi. sëñ Bass barke alxuraan. ba naa la nga bëri foo bëree waxuma foo xam bàyyil di ànd ak mbër di sol blouson ñu ni mbër nga déedéet da ngay gis nga nit ki dangay ngay gëm sa bopp man damaa gëm sama bopp gëm sa bopp de kii man ma bëgg la am Boursinata barke yow waaw ban écrit nga ne yaw man maa écrit Bawol laa ne ban Bawol Bawol dafa bëri écrit waxal ban écrit Bawol Bawol xam nga Bawol daa am Bawol mbooloo daa am Bawol waaw man Bawol laa ne ban Bawol bawol big bur sin ne yow waay ngaak nga rek ngay am fii ne <laughs> ba def nekk nii taxaw ni bawol laa nekk nii lool da c'est facile da nga naa ma équipe bii laa nekk barke Seydina Mohamed samay bëri bawol ay bata joon yëpp kii foo dem eh, kii daal fourrière daa mën a bëri waay fourrière fourrière day dërëm barki demoo njaay lañ ko fi duuma mu wane ginnaaw góor war naa wane ginnaaw góor kii bu nekkee fii taxaw fii di wax waxu mooy dafa dafa jànnaxee wax ji daanu na sareet ay fourrière fourrière yéen seen écurie boobu amul mbër mu ko fa mën a daan barke maam Sera Fall fourrière donc buñ ñu géewaloon mënu ma waaw yow waxuma la fourrière fourrière dafa sori yow man maa la mën man yow da ci teeg say waaw yow da ngaa baax di wax rek instant bi yaa ngi tiit nii di jënd ko da ñu waxtaan nii rek ko terul ne xanaa xamoo gars yi nekk nii di wax nii naa di gis nga dugg restaurant commandé maa fe waa ñi ñëw jël cere ñu ni d'abord dafa dof kooku deful de li mu bëgg la commandé. billaay walaay ñoom dinañu xam ne woyu gaal kenn du ko woy ci tefes. day day këpp gaal. barke alxuraan <laughs> dinañu xam loolu bu baax. sama cameraman mu ngi may le temps bi jeex na soo amoon kàddu yu mujj looy tàggatoo. waaw li may tàggatoo rek xamante ni ñooy jàppale bu rek mooy di woo waa Réfane. waa Réfane gépp waa Bawol tuuba ñëpp. di woo le maire pour mu jàppale ñu ci combat bi. Mhm, di woo waa waa waa Medina gépp. Mhm. waaw waa Medina. ri 1 ba 39 ñu ngi leen diwoo ci combat bi. di woo gaay yëpp waaw di nuyu suma gaa yi ma fa bàyyi ku ci mel ni ñoom Asmber mhm. gaa yi ñoom Baye Ndiaw Assane Ndeye Sarr moom it day jàppale Boursine bu baax borom Italie mhm. waaw Baye Laat doomu ndeyu Boursine gaa yëpp ñoom Boursine de maam Gor Sam gaay yëpp ñu ngi leen di bëggee bu baax a baax man mii doon gaay man maamoon bu mobile foofu <laughs> barke alxuraan <laughs> waaw yaa mun loolu ngi sant ñëpp ah. Euh, di rémission di la remercier ci émission bi ñu invité nii. Mhm. Euh, di woo ndofaan Ndofane di woo waa Guinguinéo di woo waa Darou di woo tamit fii nga xam ne fii la dëkk fii la mooy suñu cosaan mooy suñu lépp di woo waa Grand di woo waa zone bi yëpp bee bi yëpp di woo waa Daaru waa Doole waa Grand Yoff waa Cité Millionnaire waa Arafat di woo waa di nag fi nga xam ne mooy mooy base bi carrément bu ñuy wax mobile muy Senzala bi nga xam ne fii lañ dëkk di woo waa Senzala di woo waa Opinjo di woo waa réseau di woo ñëpp di woo nag waa mafia waa onze waa mafia onze ñu leen di bëggee bu baax a baax baax waa mafia onze mooy boo déggee onze maanaam sàmbur la benn sàmbur la boo xam dafa nekk si biir gaale bi ok waaw mafia onze benn sàmbur la moom dafa nekk si biir gaale moom bi mm-hmm. mooy man maay capitaine bi man la gars yi di woowee capitaine Dunga maay capitaine bi di woo ñoom saali ñoom di woo gars yëpp di woo ñoom maître Ousmane Seye ñu jàpp si combat bi bu baax a baax di woo monsieur le maire mu jàpp si di woo gars yi nga xam ne ñuy jàppale mobile ñëpp ñu jàpp si leen combat bi boo xam ne dafa am benn affaire bu ndaw buñ ci buñ ci leeral rek tuuti rek moo tax ñu jël combat mais ñu ne waaj bokkuñu sax yoon mais kii tama du la ëpp buum de mais maa ngi sant maa ngi sant maa ngi sant sama jabar. Mm-hmm. di sant sama jabar di sant sama aaw bu sant sama ñaareel bi nekk da bi nekk uh, fii ci ngaay maa koy sant bu baax a baax. yéen waaw ku am jabar war na a daan. <laughs> dafa man leen rek laay wax di woo waa ASC Kusum bépp waa Medina di Noof sunu xal fi ñu dekk ñun waa suufu garab gaa yëpp waa Robos gaa yi Pater Saint Sandaga ñëpp di ñoo war a ñëw jàpp ci combat bi reefan gépp waa Fudaay Njanjaar Sinjaan gaa yëpp benn gox bu ma tuddut rek dama laa fat ñëpp dañoo war a ñëw jàppale ko ndax daa am ci lu ñu jóge waaye ku am ñaari jabar war na maa mën a daan ah, man mi man mi man mi war naa am jom de ut fu ma ut fu may teg sama jege naa tuuti ndax xam naa ne ci bu limee benn bay wax ñaar man mi war naa mën a xoolaat sama bopp gis ngeen nii lay demee ci jàmmaarloo ah comme ni ma koy waxee chaque jour rek jàmmaarloo bàyyiwul ki nga xamante mooy supporter bàyyiwul ki nga xamante ni mooy toog ci mukaay bàyyiwul ki nga xamante ni ba ki ci ciy tëggal mbër mi danañ fi teew ni lañ koy defee jàmmaarloo ak beneen émission di nuyu ki nga xamante ne mooy Absa Diop di ko wax ne nag gëj na maa jox la ma daan jox xam naa day bañ ma siiwal ko waaye foofu laa yem di nuyu sama xarit bu bees bi nga xamante ne mooy Kumba Kumba xam nga ne yow maa tippoo sama waaye ñoom nag xam naa seen xol dina ci bon waaye nañu bàyyi rek ñu ñu doxal man ak yow di nuyu sa jëkkër bu baax a baax sang di ko wax ne yàlla sëy bi jëm kanam yàlla boole leen ah def li gën ci yéen daal yàlla mën na ko yàlla na ko yàlla def. ni lay demee ci wasaare jàmmaarloo ba beneen yoon kàggu jaar naa la bu baax a baax jërëjëf